gars yi bànneexu Real Madrid ak li ñàkkloo mun ak li tax Real am ndam loolee ci vidéo bu gàtt lañ bëgg indi jàngat ko ah, ci kanam tuuti nag beneen vidéo bi ci topp loole dana fekk ñu indil leen Santiago Bernabéu gars yi bi ñu agsee ah, fële ca Espagne kaddu yi Ancelotti kaddu yi capitaine bi lépp danañ ko doxañ ginnaaw bu ngeen defee seeni abonnement jërëjëf yow mi abonné ba pare yow mi ko defagul mën nga koo coppati léegi gars yi ma nga noonu équipe bi complet ak xar kanam yoo xam ni gars yi li ma indi mat na juróom-ñaari xar kanam waaye ñëpp dañoo bell nekk ci jàmm di wane ni am na mbégte ah, ci ànd biñ ànd ak Real Madrid beneen bi mooy Thibaut Courtois gars yi góoloo na lu amul fu ne mook adduweem yi nga xam ne ab international français la gars yi bu ngeen gisee ci image bu baax a baax ci suuf xool leen ko xoolaat ko daanaka lu toll ci juróom-ñetti arrêt yoo xam ni kii di Thibaut Courtois ci match boobee coppante na ko fa ak yeneen yoo xam ne sax yaakaar naa ni mënuñu koo gis Dortmund nag amul chance ngir gagné Ligue des champions bii mooy ñaareelu final boo xam ne yebbi na ko bii nag mu gën a métti ci mu perte ndax bii gars yi gone Dortmund ni jàppoon nañ ni équipe mag yi nu daaneel loolee gone yi sol mooy weex yi dinañ ci bokk ndekete yoo Edouard Cam Kamavinga vinga ak ñi mu àndal loolee jommalu leen te juróom-benn juróom-benn yi nga xam ni yaakaar naa ne nekk na ñeenti juróom-benn waxoon naa leen ko ci ndorteelu xibaar yi démb kii la di euh, Toni Kroos ak euh, Modric Carvajal ak Nacho ñoom ñëpp kenn kum ci mën di doon jëloon nga juróomi Ligue des champions waaye fi mu toll nii ah, bi yaa ngi compté juróom benn Ligue des champions yu ñu jël loolee nekk fi jàmbaar yoo xam ne yu am solo la gars yi maa ngi leen di eh, ziar di leen bëggee di kontaan ci yéen di leen ñaanal jàmm ah, ci kanam tuuti ñu indi leen image exclusive yi nga xam ni gonay mere ngay wàcc nañ ca Espagne